saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey ñëw fekk fa coowal Alioune Sarr ak CNG kan mooy nekk ci bile bopp CNG mboolem ñi nekk ci làmb tey ordre du jour bi mooy ana kan mooy remplacer Alioune Sarr bu fi jógee ana mooy nekk président CNG ana nan la war a mel ñii bu ñu jàppee ne ancien gloire ku bëre ba bàyyi bëre moo war a nekk président CNG ñële jàpp ne keneen a ko war doon ku nekk di wax sa xalaat ci bile poste te ki amee xalaat ci poste boobee di dira bu dee moom lay nekk bu dee du nekk moom lépp temps bi danañu ko wax li olof njaay di wax naan lu tënk xam daa yàggul loolee moo ca nekk moom Mohamed Ndao Tyson ba nu ko laajee ci kan mooy succéder président Alioune Sarr la mu xamle mooy le temps nu la dira moom la mu digle mooy di xool xam kan lañ la mu mu nar a bind mu nar mu def ci làmb fas yéene na koo bind ci livre moom dafa bëgg ëllëg bu fi jógee it génération bu fi mën di ñoo xam ne lii Tyson ba nu ko laajee ci écurie Boul la mu xam mooy Boul day des di nekk Boul Falé boobee def nañ fa lu tax du fay mukk ak jamono ji mën di ñëw dañuy xel di dégg écurie Boul waaye mbiri président CNG Alioune moom waxu ca àdduwu ca ka ca àddu ca xalaatam mooy Père Kayré moom Boy Kayré la ko intéressé mooy futur président di CNG ana nan la war mel ana yeen qualité moo war nekk ci moom ana yeen jikko la war a loolee moo nekk nii ñëpp xam nañ ne amul lenn lu ciy doxal làmb dañ ko war soppi soppar ñi ko indi leneen luy doxal làmb beneen président CNG bi fii ñëw dafa war wàññi licence yi jële ko ci bi ñëw dafa war a la lutte olympique beneen président CNG bi ñëw dafa war nekk ku mat ku mature ku mën a diriger ji ku am compétence mën a diriger ji kookee la soxla bu ñu jàllee ca saison làmb 2020 bi ñu waroon a jàpp bés bi ñu koy ubbi la xamle moo joxe bi ñu ko war ubbi moom dootu ko ubbi amul kenn ku nekk ci làmb wala nga nekk CNG te war a xam date bi ñu war ubbi saison bi loolee daal lañ ca mën a jàpp mooy tànk mbas mi fi nekk jógewu fi saison bi du ubbi saison bi leen day tax mu ubbi buntam mooy mbas mi jeex tàkk bu ñu jàllee ci association fils de association pour la formation l'insertion des lutteurs seen formation yi ñu doon amal mbëri niki le 4 septembre lañ fas jot seeni diplôme Pape Tidiane Faye bu Lansar yaawu jaal bu Pikine mbooloo njaga doole bu école de lutte les tigres Youssou Ndour bu école de lutte Balla Gaye Moussa Balla Gaye bu dóor dóoraat caatu yarax bu écurie askan wi bu yarax Garga bu Parcelles Assainies yi mbër yu ràññeeku ci làmb ji mën nañ leen a jàpp ci bile formation ñoom la bëggoon te association ba bëgg ko muy mbër mu nekk amam métier loolee léegi mu jeex le 4 bi ñu dëgmal mbër mu ci nekk fas seen leader ba wax Demba Thiaw 2 wax sekk ndaanaan foofee seen victoire ya doomu yoof moo daan milko bu kër Masaan mbooloo caatu ngéwél moo daan fils de Zallo petit l'enfant moo daan far bu jar ama bu yoof moo daan simba bu bëskoo sow joofiyoor moo daan Edouard bu batleen sikki seen ñetti defet ya booy fisel moo daan sekk ndaanaan booy jobaas daan Demba seen coach ba bàyyi ngeen jénn la mu xamle mooy ñun ñoo nekkoon champion en 2019 danoo waroon a confirmer ren waaye gis bu saison bi gën a fas ci etu yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah